سيدنا النبي كون ñu teg ci ni sëy yi nga xam ni ñooy am ci Sénégal ni muy doxe ni sëy yooyu di doxe moo tax doom ju barkeel moo ci ñi mujj juddu ci jamono ñi mujj a juddu ci jamono ñépp la dégg leen tuuti te lee fecc na ku la ko dàq ku la dàq fecc moo la gën a ñàkk kersa ñi mën fecc ñëpp amatuñu kersa dëgër bët ñàkk fulla beneen bi ci topp mooy mën nañ mooy mën nañ koo jàmbat waaye responsable bi dëgg-dëgg. bi nag dëgg-dëgg. mooy état bi mooy état góor jigéen. mooy affaire góor jigéen. homosexuel. homosexuel. lañ ci wax. baaxul. santul yàlla. ñaaw na. te mbir la moo xam ni. ku ca mën dara. te waxuloo ca. ku ca kontaan. yow yaag ñooma yam góor di seeg góor falam yam jigéen di seeg jigéen falam yam fii nag am fi woon amoon na fi bu yàgg booba manifestement góor jigéen yi góor jigéen yi dañ daan def nii seen loxo dañ daan seen loxo sol xaftaan. déglu leen tuuti. sol xaftaan. fant ko xaftaan ba. soo caayee ju yem ci wóom ji. ñu xam leen ñoom ca loola. booba jamono. booba jamono nag. diggante ndar ak ndakaaru. am nañ fa baat. am nañ fa di invité. bu ñëwee bu ñëwee ndar. mu mel na tuq si bun nag ñu léttu puudaru aneelu di daagu ci mbedd yi bu ñu demee ndakaaru it noonu rek naa gis góor jigéen nee dégg leen tuuti mas naa gis ne moom góor jigéen bu dee nit ñi nit ñi ni duñ ko suul ko sànni xeer. di ko sànni xeer nag. ba mu dee. foofu. moom mi ñoo janoo booba fii. ci gël tàppe. ñu koy sànni doj. koy sànni doj. ba bët yi génn. ñun ñëpp fa la ñuy yendu. ñun jigéen ñi sàkk délégation. góor jigéen ñi nag sàkk délégation. ñëw ni jox leen ñu yóbbu ko. jox ñu yóbbu ko. Fatiha ak Saar. Fatiha ak Saar. yomb na ñu jullee ko yóbbu ko. loolu góor jigéen ñoo ko def. wa tabaarakallahu. léegi nag. léegi nag. kenn waxatul waxu jigéen. waxu jigéen. kenn dammatul sa loxo. kenn kenn fantatul kenn fantatul waaye góor jigéen yi waaye itam ni ñu toll ci réew mi ni ñu toll ci réew kenn xamul nañ toll danañ ko dendale danañ ko dendale nag ak ay farmason waaye état bi ci boppam état bi ci boppam li ñuy wax impunité li ñuy wax impunité moo bon yu bare di am bon yu te kenn waxu ci dara boppam ba tey. ministre de l' intérieur. ministre de l' intérieur. lii xew ci biir réew mi. lii xew ci biir réew mi. ci loxoom lañ ko teg. ci loxoom lañ ko teg. góor jigéen yaa ngoog. góor jigéen yaa ngoog wax ci. kowel wi kowel wi sidna nabi.